ñàkk bi de ñàkk naa ko foo ci ñi njëkk a njëkk booy ram ci la bokk waaye bi ma ko ñàkkoo saat bi ma ko ñàkkoon sax suma lool yi daf doon métti waaye bi ma ko ñàkkoo la baay ñàkk bi ko wax ne dafay joxe feebar joxewul benn feebar